Mbacke wa Touba ak kep ko xamni ne nga ci région bi maa ngi lay nuyu nuyu bu sel maa ngi di xamal ni bég naa si yéen li wor te wor moy amna na waajoo dafa doon wax fay ñew fi ndëkk ma may ñëw fii jël na ay bagaasam ba dem am na jël na ay bagaasam ba dem rusloowu ma bëggeel ngeen ma te xam naa kan ngeen ma jàppe mooy Cheikh Mat Bamba ngeen ma jàppe Touba jërëjëf Serigne Touba nee kon maa ngi Serigne Mountakha Mbacké dama leen di man damay dund Serigne bi fu dund Touba Touba doyloo sëñ Touba yaakaar sëñ Touba looloo tax bi ma xëyee dama ni bala may tàmbali nan lay tàmbalee mooy damay dem ziyaari soxna Jaara Buso Poroxaan laa jugee ma tàllal sama loxo soxna Jaara wax sama bëgg-bëgg jëmale ko si réew mi jëmale ko si ndaw yi jëmale ko si soxna yi soxna yi jigéen ñi jàpp ni foofu la fasanteeg yéen kóllëre goo xam ni kóllëre googu dara du ko dog ma ñëw sëñ Mountakha dalal ma dal bu dalal bu rafet maa ngi sant di ko gërëm maa ngi sant kilifa diine yépp këru diine yi fu ma dem fu nekk teeru nan ma teral na ma kon bëgg bu baax a baax jërë jëf li si des mooy ma wax si réew mi Macky Sall yàq na réew mi réew mi tey foo làmb mi ngi metti na dem na dem na dem na dem na dem yàq na réew mi ndax foo dem mi ngi metti rawatina justice bi ñépp ñi ngi ŋàññi justice Daxlan dafa jël loxoom teg ko ci justice di ko defloo di ko diniloo ba Sénégal kenn gëmatul justice man nag danaa fexe ba yaakaar bi nit ñi am ci justice mu dellu ci nan laa koy defee ci ay pank yu ci ay ponk yu bëri bu njëkk bi mooy président de la république dootul doon président booy conseil supérieur de la magistrature président de la république d'autres nommé ministre de la justice képp koo xam de dafa seul Adam ci de parti président de la république d'autres nommé ministre de l'intérieur képp koo de vos dafa seul ni seul, na ci parti président de la république dana góorgóorlu ba lépp loo xam ni si indépendance justice la jëm dana ko fësal danaa woote waxtaan bu xóot ba lépp lu ñu war def si justice ñu def ko danaa jël conseil supérieur de la cour des comptes ma jox ko indépendance sam mu man doxal ba li moo saytu dara du ko xajamal président de la république su ma yàlla mayee ndam dootul doon chef de parti président de la république su ma yàlla mayee ndam dootul jël alalu réew mi di ko séddale ay njabootam ay xaritam daanu yor réew mi yor gu rafet samay famille samay xarit samay am di jàmm du nu jël di pàccoo réew mi damay jël lépp delloo cër bi réew mi ndax réew mi lu waay man gannaaw yàlla ñoom la président Macky Sall nag dafa fàtte loolu ku fàtte ku fàtte la tax nga folu foleeku day lay yomb moom foleeku na na dem na dem na dem na dem na dem na dem na dem na dem na dem na dem na dem na dem madame madame madame madame madame Les lu mu wax réew mi daf ko jëful gestion sobre et vertueuse gestion Bob, elle n'est ni sobre ni vertueuse c'est une gestion qui ne fait que favoriser l'intérêt personnel tous les jours l'intérêt général est piétiné on ne reconnaît plus le Sénégal des valeurs. On ne reconnaît plus le Sénégal de Cheikh Bamba. On ne reconnaît plus le Sénégal de mamel Malik. On ne reconnaît plus le Sénégal de nos illustres chefs religieux. On ne reconnaît plus le Sénégal de Yassine Kandoum. C'est un Sénégal sur lequel tout le monde s'interroge. La démocratie est en recul grave. Les valeurs sont piétinées les Sénégal souffrent dans leur chair. Pourquoi Parce que les jeunes n'ont pas de travail. Les femmes continuent à se battre pour survivre. On est dans un monde sans lendemain avec Macky Sall. Moi, je veux vous proposer un contrat social qui créera les conditions qui permettront au Sénégal de d'être prospère dans la paix. C'est pourquoi mon projet de société s'appelle Jam ak Xéewal. Macky Sall fitna fitna tële ak bekor le indi si Amna mi. am na ñoo xam dañu si defal ñu candidature Macky Sall moo ko téléguidé mais xam ngeen ni xajuma si gannaaw Macky Sall yàlla ko kon duma nangu man ku gëm sëñ gëm diine gëm sëñ doo jaay mukk sa kon ñooñu di wax wax ju amul solo mais dinaa ko fii ngeen xam ko li ëpp solo mooy jàpp leen ñu ñun xam na mu baax fa noo jëme réew mi réew mi dana doon réewu jàmm réew moo xam ni kenn du foyontoo réew moo xam ni kenn du fi jaay doole réew moo xam ni daanu Sénégal yëpp daanu gis seen bopp si réew mi réew moo xam ni jigéen ñi ndaw ñi daan si gis seen bopp danaa jël liggéey métier lay jël di leen ko jox jàngal leen ngeen napp waaye du ma maye jën lu dul su fekkee ni dafa doon loo xam ni mënul ñàkk waaye gouvernement boo xam ni da nga bëgg toroxal sa askan yaay def defin goo xam ni au lieu que nga wutal leen liggéey au lieu que nga fexe xale yi bañ dem si géej gi au lieu que nga fexe xale yi bañ dem si désert bi ngay jël juróomi junni yu ngott yooyu di leen ko séddale kooku toroxal sa réew la kon Sénégal yàlla may na ay wërsëg wërsëg woowu dama gén bëgg yéen ñëpp ngeen gis seen bopp jot na nag lépp loo xam ni alal la si réew bi alal jooju ñëpp gis seen bopp yamuma foofu bépp gox-goxaan boo xam ni daf ko woon ba gox-goxaan boobu amul dara man danaa jël 500 millions ba 1 milliard 500. ay institution yooyu nga xam daf ko teg pour mi jël ay xaritam jël ay partisans militants institution yooyu yëpp danaa ko supprimer.

dana wo waxtan ak sunu partenaire yi pour que ñu tok waxtanar ci contrat yi fexé ba Sénégal gis bopam ci bir contrat yi mais lolu su amé ba paré damay jël alal ju takku jox ko ndaw ñi mom jox leen alal lu mu leen bàyyee ay bor la leen baye dama leen wax Sénégal fi ñu tollu loo jàpp lu nekk soixante pour cent de la soo jëlee téeméer bi nekk juróom-ñaar fukki ya ay société étrangère ñoo ko yor seetaan na ba alalu Sénégal waa bitim réew ñëw foqati ko ci senegal yamul foofu soo seetee at mu nekk état bi dana fay 72 milliards intérêt bor bi ñëwagul de intérêt rek lay fay fi mu toll. loolu wane na ni moom dafa tayle réew mi buum googu nga xam ne daf ko jël yeew ko si baatu réew mi teg yëkkati ko ba sa kaw jàppale ko ndax ñu amoon lu dul diine ji danaa taxawul benn ministère bu mag boo xam ne ministère de souveraineté lay doon mooy yor mbirum diine ji mooy toppatoo daara yi lu tax ñoo jàppale école yi te duñu jàppale daara yi jaaduwul maanaam fexe ba si biir daara yi ñu fee jàng jàng métier suñ fi jàngee métier ku jàng alxuraan jàng xam-xam ñëw gën am sa métier soo liggéeyee daa doon ko am njariñ pour sa société. danaa danaa danaa jàppale jigéen ñi bu baax a baax te bëgg jëmale kanam gox-goxaan yépp fu amul dara danaa fexe lu bëri am fa seet leen télé président Macky Sall nan la télé maa ngi bàyyi ndox Dakar ñetti fan a ngi nii amul ndox ku fekkee ni moom si juróom benn at mënul faj soxla Sénégal ba Sénégal amul ba ma dakaar amul ndox ñetti fan kooku lu ko desee mooy na dem abal nu na dem na dem na dem na dem na dem nadam nadam adam adam nadam nadam nadam adam adam nadam nadam nadam adam adam ña nga ña nga ca gaar ba doon xeex jëlee nga leen fii sànni leen ca gaar ba ñu ngay xeex ña nga doon xeex ca gaar ba fii la bëggoon a déjeuné jëlee nga ko fi sànni ko ca gaar ba Touba waa Touba waa Mbacké waa Diourbel président Macky Sall mën naa ko wax fii ni defalu leen dara képp koo xam ni képp koo xam ni daf koy gërëm wax dëgg yàlla dafa bëgg lu ko neex rek ana hôpital ba mu diggoon waa Touba seng ya ñi ngay naaw tey Touba benn fépp ndox su fa tombee rek Touba fépp taa amul assainissement yoon yi doyul tey Touba war nañ ci créer ay bërëbu liggéeyukaay yoo xam ni ndaw ñi daan si war man liggéey jigéen ñi war nañu créer ay unité de transformation yoo xam ni daan si man liggéey loolu yëpp amul si tuuba amul si Mbacké amul si Diourbel dama bëgg jàpp ni ni ma bëgg defaree Sénégal danaa jiital ci defar boobu dëkk yu am solo yoo xam ni dëkk yooyu dara amu fi Touba mën naa wax lu fi am lu nekk président Abdoulaye Wade la xoolal ñoom ban fi toogee ba tey ban fi toogee ba tey suma juumul ñaari forage lañ fi def seetal ñi ko jiitu lu mu tuuti tuuti dem nañ fi fukki forage ak lu topp te nag man yàlla may na ma ma am xam-xam boo xam ni dana tax ñu lijjanti problème mu ndoxu Touba bi ba nu bokkee ci rassemblement des mourides Tawfiqul Hadi dañ fi indi ay italiens yoo xam ni nee na nu ndox mu neex mu doy am na Touba boobu kon nanu jël ndox moom indi ko Touba reprendre réseau soo ko defee daa jëmale kanam li nga xam ni mooy ndoxu Touba kon li si des mooy wax leen ni leen ni ma tàllal loxo sama réew tàllal sama loxo réew mi si lan laa ko sukkandiku bu njëkk bi mooy dama xam ni réew mi jafe-jafe yi bari na ñaare bi dama xamni yori wi rafetul ñettel bi dama xamni mom ba fi nu toll gisuma mu jublu si noo xam ni ëllëg dana defar réew mi su yoree réew mi yeen ñepp da ngeen ni gën son kon nanu fexé ba mu jóge fi ba paré yalla dimbali ma ba ma xamni état di fonctionner doon fukki atu ministère yor naa ministère fukki at yor ministère yu bëri yoo xam ni man na tax ma xam réew nan lay doxe moo tax dama tàllal sama loxo rek commencé wax lan mooy faj réew mi dëpp dëpp ba fii ma toll amul kenn koo xam ni mën na ma démentir si li ma wax nii réew mi nii la noo faje soxla réew mi ba pare yàlla dimbali ma valeur yi nga xam ni société sénégalaise daf ko gëm valeur yooyu lu bari nekk si man lu may def ngoor laa see jiitu ak jomb lu may def lan laa see jiital mooy yërmande yërmande te bëgg dimbale lu may def lu nekk lan laa see jiite mooy bëgg Sénégal waaye nag bëgg naa si yéen d'accord nañ de. amuleen morom. merci beaucoup président. maa ngi sant. jërëjëf. waa Kër Sëñ Touba yi nekk si tribune bi su ma tuddee juum awma ma seen fay ñoom ñëpp ma dama dama dem ba ñoom ñëpp ma jox loxo su ma waxee waa Kër Sëñ Touba mooy ñi sant Mbàkke mooy ñi bokk si Cheikh si mooy ñi bokk si njabootu waa Kër Sëñ Touba ñëpp si leen bokk képp ku Sëñ Touba yilif yilif sa waajur yaa ngi fii ñoo bokk ak man jataay bi yàlla na ma leen sëñ Tuubaa fayal du ma leen rusloo jàppale ne élection bi jeex na tey dootuma campagne bàyyi na campagne bi jërëjëf